sedd bi de mom neexul mom bari na trop ngelaw li poussière bi da ngay tudd sa kër sax do am envie genn ndax poussière bek ngelaw li mais dara il faut ñu génn ndaxte buñ génnul duñ toppatoo la ñu war a toppatoo boo am lo yobu kër ga waaw ak liggéey bi non metti na nag moom non metti na metti metti na trop te liggéey bi mom mom lañ am man sax boo gisee gars yi ñoom ñooy liggéey man damay ñëw rek toog di assister mën naa toog ci biir magasin bi sax duma génn waaw mais métti na nag man xam naa ne liggéey bi moom liggéey bu métti la du liggéey bu yomb ndax métier la ndax métier moom boo ko xasee ba mën rek waratoo am loo ciy bañ doo sóor ngelaw li doo sóor poussière bi lépp lépp ak nu mënti demee rek yow da xëy nekk ci noonu la demee mais sant yàlla daal ndaxte ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu ngi ciy faj suñuy soxla xeex sedd bi ah sedd bi de moom xamane mau kenn mënu koo xeex <laughs> sedd bi sunu borom sunu borom mako fi wacce kat waaw waaw mo ma ngi def sama pile bu bax ni def sama tuba bu bax ak samay dal lolou kay mo xex sedd bi waaw te bu may dawal moto damay sol sama casque tak samay lunette def samay gants waaw bu ko defé man lolou lay xexé sedd bi mais amul leneen sedd mo xam mënu ko ndax bu doon ñi nga xamante ni bii dañuy dem Europe boo demee sedd bi sedd bi foofu la gën a méttee te boo xëyee suba da ngay génn dañ ko tàmm nag duñ waaw duñ solo ay suset ak yooyu waaw ñoom dañ dañ ko tàmm nag luñ tàmm la boo xamante ni bii dafa nekk ci ñoom xam nga depuis nga nekk xoolal yeneen booy yu ndaw yi nga xamante ni bii boo xoolee ay sept ans huit ans lañ am xam nga dañ koy tàmm dañu xëy suba ñëw di nekk di apprenti wu nga leen di yónni ñuy dem di ñëw defal lii defal lii ngay gis da ngay gis sax ñuy def genre carax légui dañ koy tam légui bo da nga ba magalé lolu am 30 ans 35 ans rek légui dootul dootul graw ci yow ah non nag waaw ngelaw li ah, ngelaw li nan hmm wa mën nga dem nak ba nek mag nak mu xaw a jàpp ndax lolu day am mënul ñak mais xam nga yalla ak dogalam nit ku nek ak milieu bi lay yalla di dugal milieu bu la ci yalla dugalee tamit waaw day am day am amna sama waaju tok fi ku tuddu alsam meng ba kooku foo fekk day tisoli kooku foko fek day tisoli ndax ndax ngelaw lek affaire yoy non non amul fi bu dee gaay yi liggéey fi ci mécanique bi mom amul am amul fi gaay mom yalla may defal na len wër nga xamanteni bi dañu xey suba nek ci li nek bu wacc jotee ñu wacc waaw sédd bu ñëwé dañu wara comporter woo moy xolaat yaram yi rek bu diiw yu baax rek lool dong lañ fi am amuñu fi leneen defar yaram yi rek aduna amul solo lo fi gis day jeex te lepp ci ay nettal lay mujj mm. waaw noonu la demee rek amul leneen. Thiès moom nit ñu baax a fi ne yàlla na yàlla jàppale boole xol yëpp loolu rek la amul leneen. sedd bi métti na da koy fanaan biti kay xam nga ne sedd bi métti na sedd loolu dama wax dëgg yàlla guddi gi fii day da ngay sa sangu mais day mel ni biti xam nga fanaan biti moom fii lay fanaan waaw fii laay fanaan non non dama am benn problème ndax tàmm naa ko mhm. sa saako suur fii laay fanaan mais tàmm naa ko. non non damay sumi veste bi sangu non non ko sax ab sedd boobu mu ne sujee mucc tànk mu jeex rek ndax ndax ki ko saak moo ñu saak day dox mission bi mission matin mu dem bàyyi ñu waaw indi ñu tàngoor. ñooñu ñooy sedd nag ñooñu ñooñu dañuy xeex sedd ñoom ñooy indi sedd sedd boo soobee lu oyof ngelaw du fa téye da da lay romb mais boo soobee lu diis day dugg ci biir te diis la taxaw fa day gën a sedd doo soobee sol jacket bi daal nga làmb jacket mu sedd guy. mais eh, bu dee ma da nga wala mu mu day romb ku taxaw waaw waaw tangay da ngay sol lu dis lu dis mu ñëw tangay bi ci kaw lay yam loolu mo wax deug yalla ah wax deug yalla ab seet daal mo moo tàngaay laa yemale defu ma dara bu jàllee jàll na leen ñëw ma nekkaat waaw ki ki sét mo ñëw ñëwaatee rek période la day jeex la na ñëw man mo tax daanaka ñu la ko jappé tàmm naa ko. waaw sét bi mom metti na torop tay mom moom mom da sét torop vraiment sét bi métti na ci chauffeur Jakarta yi waaw. mais nag liggéey moo ko laaj quoi waaw waaw loolu moom am yére bu baax rek yére sedd moom taay moom xam nga jaar na dara sofor boo gis moom xam nga day nekk ak pilam wala xam nga am ñaari yére yoo xamante ne moom parfois bi boo ko ba am beneen boo xamante ne ngoon da nga koy liggéey quoi waaw loolu la. non casque parfois rek mais casque yi baax na ci waa am na ñu koy sol am na ñoo xamante ne duñu ko sol mais nag dafa baax ndax tey sedd moom presque ci nopp yi lay jàpp quoi. waaw loolu la si si loolu am na am na ñoo xamante ne xam nañ ko am na xamante ne tamit xamuñ loolu waaw ndax seddil moom boo gisee nit ku sol yëre ku sol yëre bu jot rek boo xoolee seen yaram yi sax xam nga duñu bokk quoi waaw loolu nag xam nga ngelaw bi moo moo ko waral loolu yëpp ci ngelaw bi la tamit waaw ngelaw moom baaxut non non xanaa nga sa diw xam nga aw mooy wala sa frotté waaw yëre diw diw daal lañ am ñun mais amul ay comprimé wala diw nof diw moom ça dépend mais ça sedd bi moom il faut bu baax rek waaw waaw loolu moo am na. waaw parfois rek parfois nag ñu yëngal ñu ñu yëngal ñu ramas bi xam nga ramas bi daal moo ñu léegi sedd bi non moom dañ koy digérer rek sedd moom dañ koy digérer xam nga loolu yëpp temps la xam ni moom lu ñuy wax rek sedd bu ñëwee rek nga ne sedd tàngoor bu ñëwee nga ne tàngoor mais saa moom sedd bi moom mu mel moom waaw. wa mo ñu gën a jaaxal mo nag moo baax nak ci nit ñi wa non da koy jambat de daa koy jàmbat ci ginaaw wala yow yow nga santé ne kii état eh, bi sa dum ko escanté waaw non non lool mo musuma dal man mom lool mo musuma dal waaw waaw lool mo ma ngi leen di ñaar rek comme ni ma waxe di biir xam nga kene ko ne sol sa yere bu jot rek xam nga nga nga lii ko daal xam nga nga protéger oh, normal dal lool ko la la leen di wax daal waaw loolu mooy l'essentiel bi ah sedd mom jamono ji met na lool ndax da ngay gis da ngay gis sax ay mbag yo xam ne xey wara sangu dañu sangu sama ñaar yi ya ñoo ni sam sam sax ñu war def dañuy xey jangu defal suñu loxo rek daal iya, di kii moo yi gënal dañuy xey de gënal ñu ñuul waaw gis nga de ma ngi ni nga parfois dañuy tere sax pour ñu tegle ki tenue yi tenue yi daa war nekk si kaw obligatoirement mais ñun dañuy préférer diga def ni bax ndax sedd bi motax tax ah jigéen de mom la bëgg lu bon rek <laughs> ah parfois moom dañ seen yére ñu sol da leen jalal ñom ñu baña sol lool ñu tok di korko di mo leen gënal ñom ñi sol ay kiyo ak yooyu noonu pour le moment moom suñu école mom gisaguma ko fa mais peut-être tamit mën na am si yenen établissement mais suñu école mom pour le moment mom baxna mom ah dama len wax ne seddaay bi essence bi moy lol de eh. danger na danger bo xamni moy lol il faut ñi sol lu ta te tamit di si boole sangu nag sedd bu mu tax ñi duñ sangu suñu mënee tangal ndox suñu tangal ndox mo gën nañu sangu mo gën. ñu sant yalla bu ñu sant yalla julli ci yenen tibi te xam sedd ak tangay ñoy andi suñu borom mo koy def nu ma gisee bi xana sant yalla rek ndax bu tayé mu tang bo légué mu sédd lolou suñu borom a def ñu daal ci and ngëm-ngëm rek ak ci sant yalla sédd bi nak mom xam nga ngi dañu di surtout man ku melni man bari fébar tubarkalla sant yalla rek fébar yi day yëngu ordonnance yi ñëw nga wara jënd di dem hôpital di dem ko ñëw lolou lepp ñu doyé ko sant yalla rek waaw di julli ci yonent bi sant rek ner waaw Wow, wow, neer si atit man maa ngi pajo i metti na ndaroon dooy moo ma moo ma traité wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla booba sama loxo bi bañ na metti na lool ma dem ñu yebal ma ci ndaraw ma dem mu defal ma seet ma wax dëgg yàlla moom itam docteur boobu boo xam daal da dalal xel waaw faj di ma defal ordonnance weer bu ne ñeenti junni waaye maa ngi sant yàlla bi ma ko dalee jël ba tey mang sama mbok yang kijap ciy kijap mang ngi cila juga maa ni ah, luma luma fortat laa jógee daal wér nii lu ma lu ma fortaatu rek def ko ci samay ordonnance ak samay mbokk waaw c'est problème neer laa am ak jabet ji jabet ji ak neer bi ñoo ànd damay sonn trop barki dem laa jógee hôpital barki dem laa jógee hôpital wóor na yàlla ya ak bi waaw dañuy tàngoo ndox mu tàng laay ndox mu sedd suma sangon ndox mu sedd rek une fois dama ko yek damay sangon ndox mu tang ma tangale ndox mu ma xey sangu dal di julli dal di ñaan ci yonent bi yalla may ma wër may ko mbolé mu julli yoy dal ci la nek ma xey suba rek julli suba dal di ñaan ci sunu borom may nu wër may ko mbolé mu julli man de damay solo 10 nak dom ma xey damay solo 10 ma xey suba damay solo 10 pour prêter sama yaram ndax sama wër gi yaram taaluma ah xana ñu diko jema def rek bu nu xëyee bu nu xëyee suba solo 10 bo solo 10 dina protéger sa yaram ndax mak solo oyof baaxul ci mom parce que day japp ay yaxam so solo 10 nak yalla man mën na laa defal sam sa yaram du du ki dal sa yaram ni sedd bi duggal sa bi yaram du ci dugg bo xeye nga solo 10 wa ñu ngi sant yalla ci loolu dal wax deug yalla ni xeye dal yalla may nu wër ñu julli ci yonent bi dal sol sunu 10 dal di tok sant yalla dañuy goné rek dañuy xalé waye mag mom du def lolu xalé mo koy def waye mag du def lolu mag mom du def lolu parce que mag wérédéem day bari wérédéem day bari bu ko défé sa wéré di bari nak yow yaay sét li lay arrangé nga di def di protège sa wéram waaw di dem hôpital di dem ay rendez-vous di jënd ay garab di naan lolu daal lan yàlla séddee ñu doylo ko suñu borom dal. ci lolu dal lañu nekk